Neymar Junior ak équipe nationale bu Brésil Let's Move ak MLK Info gannaaw loolu di la wax salaamaaleykum les gars di leen dalal jàmm seen page bi MLK di la ñaan yow mu abonné gun nga abonné li xam ne kat mooy cloche de notification bi nga xam ne vidéo bu ñu dugal da si ñëkk njëkkaam gannaaw loolu ñëw ngeen si ki xam ni kat mooy Neymar nag bokk ki xam ne mooy Koulibaly li xam ne kat mooy équipe foofu la sa Arabie Saoudite moom nag lim daal li nga xam ne kat mooy trade national yi nga ne moom la ñu war a jëm kat ñu bañ kaa convoqué si yooyule traite nationale ngir mu mën a récupérer gën a nekkat a forme bu baax a baax ki nga xam ne kat mooy Neymar lu la daal di ñaan fédération bu Brésil lu la daal di ñaan gannaaw loolu ñu jóge si lu ñoo ki nga xam ni kat mooy Palmer nag moom lu mu daal di xamee ki nga xam ni kat mooy Virgil van Dijk nee na nag ki nga xam ni kat mooy Van Dijk bokk na si défenseur yi nga xam ni kat ñoo gën a naqadee li nga xam ñoo gën a naqadee affronté ba tax na attaquant Chelsea bi kat mi nga xam ni boo xam ne ni kat bu naqadee affronté la ki nga xam ni kat mooy Virgil van Dijk Virgil van Dijk nag naa képp kuy seetaan football kat xam nga ne kat ki nga xam ni kat mooy Virgil van a défense am bu baax a baax nekk nag foofu la sa Liverpool défenseur la boo xam ne nii nag bu man li nga xam ni kat moom lay def foofu la sa Liverpool gannaaw loolu ñuy jógee si loolu ñoo ngi ni kat ñooy waa Napoli waa Napoli nag jamono ji ñu ngay yëngal li nga xam a kat mooy série A ba démb nag dañoo fekk ki nga xam ni kat mooy Milan daal di koy dóor li nga xam ni kat mooy 2 ba tax na ñi kat ñooy waa Napoli nag ña sa bopp classement ba ki nga xam ni mooy Antonio Conte nag mën na ne jamono ji kat ma ngay doxal bu baax a baax a baax sa Napoli ba tax na ñi nga kat ñooy waa Napoli xaw ma sa série A kat waaye équipe bi nga xam ni Napoli bokku si ndax buñ xoolee ki kat mooy Conte dix dernier match mooy benn match moom la dal di niil dém dem bi nag ku dugal bi di bokk na si ki nga xam ni kat mooy Kvaratskhelia ak ki nga xam ni kat mooy Romelu Lukaku ñoom nag démb ñoo daal di dugal bi di nga xam ni kat am nañ sa boobule match ba tax na ñi nga xam ni kat ñooy waa Napoli ñoo mujjee yóbbu li nga xam ne kat euh, muy ndam la ki nga xam ne kat euh, mooy Lukaku nag bii mooy sixième fois muy dugal ñi nga xam ne kat euh, ñooy waa Milan ba tax na jamono ji kat ñi nga xam ne ñooy waa Napoli ñang nag sa bopp classement rawee li nga xam ne kat mooy Inter sept points gannaaw loolu ñu ñëw ngeen si nga xam ne kat ñooy Cristiano Ronaldo ki nga xam ne mooy Cristiano Ronaldo nag démb dafa raté li nga xam ne kat mooy penalty gannaaw quatre-vingt-cinquième minute ci la raté li nga xam ne kat mooy penalty ba tax na bi nga xam ne kat muy ji euh, éliminé si li nga xam ne kat mooy coupe kon nag Sadio Mané ak ki nga xam ni kat mooy Cristiano Ronaldo daal di nga xam ne kat mooy coupe mais bu fekkee équipe bi nga xam ne kat mooy bu Koulibaly nag ñoom démb dañoo mujj dóor li nga xam ne ni kat mooy 4-0. 4-0 lan daal di kon nag Al Nassr bu Cristiano Ronaldo ak Sadio ñoom daal di leen si li nga xam ne kat mooy coupe ba tey ñu jógee si loolu dem si journal bi nga xam ne kat mooy Mundo Deportivo moom nag la mu fësal sa xët wu njëkk tey jii ñi nga xam ne kat ñooy waa Barcelona la daal di si li nga xam ne kat mooy xët wu njëkk ma nga xam ne kat ne 2010 kat ki nga xam ne kat mooy Messi ba mu li nga xam ne mooy Ballon ñetti joueur yu Barça ñoo daal nekk si li nga ak ki nga xam ne mooy Iniesta ak ki euh, euh, ba tey nag loola dafa mel ni kat dafa répété waat si Ballon door bi nga xam ni kat moom na doon euh, joxe jëm si wàllum jigéen ñi ba tey ñetti jigéen yoo xam ni kat ñëpp ay joueurs yi Barça la ñoo mujjoon nekk si li nga xam ni kat mooy pëjëm bi ki nga xam ne mooy Aitana kat daal di yenu li nga xam ni kat mooy raw gàddu ga ba tey journal bi di Mundo Deportivo bàyyiwut ñi nga xam ni kat ñooy waa Real Madrid ma nga xam ne kat ne ñii di waa Real Madrid kat jamono ji kat déception dëgg lan daal di am nag ndax ki nga xam ne kat mooy Vinicius mujj la jël li nga xam ni mooy Ballon d'Or ba te barki Demba Ndiaye tamit Barcelona da leen a fekk Santiago Bernabéu daal di leen dóor li nga xam ne kat mooy 4-0 te gis na ne Ligue des Champions équipe bi nga xam ni kat mooy Liverpool da kaa fekk si ma ne ko li nga xam ni mooy 2-0 première mi-temps bi après na ci leen daal di dindi boobu résultat keroog nag yaakaar ne équipe bi daal di baax taxaw na lool nag. ñi nga xam ne kat ñooy waa Barcelona ñoo leen fa fekk daal di leeni eh, tullanti ba nooy nepp ba tax na ñi nga xam ne kat ñooy waa Real Madrid jamono ji jaaxle gu métti ci leen daal di nekk. ba tey journal bi di Mundo Deportivo bayeegul ñi nga xam ne kat ñooy waa Barcelona ba tey ndax mi nga xam ne kat ñii di waa Barcelona kat liñ jël si Ballon d'Or kat boo ko totalee mi ngi toll si dix neuf Ballon d'Or mën na ne. ma ngay xamle nag douze personnes yëpp si li nga xam ni kat mooy Masia bu Barcelona kat ci lañ daal di génnee ba tey Ballon door boobu duñ ko ndax ki nga xam ni kat mooy Karim Moustapha Benzema nag moom ma ngay xamle kat ne ki nga xam ni kat mooy Vinicius moo mérité woon li nga xam ni kat mooy balon door bi amul ren nag jafe-jafe ki nga xam ni mooy Rodri nag. waaye dafa xam ne kat ki nga xam ne kat mooy Vinicius Junior jamono ji kat moo raw ñëpp si li nga xam ne kat mooy performance bi nga xam ne defoon na ko saison passée ba tax na mi nga xam ne kat ne li nga xam ne mooy Ballon d'Or bi ki nga xam ne mooy Vinicius Junior moo dal di mérité li nga xam ne kat mooy Ballon d'Or bi waaye nee na ko xale la na gën a liggéey rek dana mos a ñëw ba tey nag ñi nga xam ni que ñooy waa Real Madrid match bi nga xam ne moom leen waroon a jàkkaarloo équipe bi nga xam ne que mooy Real Betis jamono ji nag ay taataa ak i taw yàq na fa lu bëree bëri ba ñu ngi ragal ne boobale match kat yaakaaroon ne ba match boobu kat dana mujjee antu kon nag mën na ne match bi nga xam ne kat mooy dox si diggante Real Madrid ak Real Betis nag jàpp gun ne boobu la match dana am officiel gun nag waaye ñi nga xam ne ñooy waa Real Betis ñi ngi xalaat daal di bind ñi nga xam ne kat ñoo jiite léegi bi di leen daal di xamal ne kat match bi buñ sañoon ñu daal koy aj waa gars yi xam naa fi leen ko jëmal di leen jox dig si luy dooleel pass bi dina wax jàmm